yow tey da nga teel a ñëw sax. lu tax ma teel a ñëw. Hmm. yi nekk fii xanaa da nga ko fàtte avant tout sax wàcce sa dàll su ma sa dàll yi waaye waral fii nga jël sa dàll yi. fekk sama gaale nag di ma. waaye man yaa fii waaye fii ma am fi droit. dama lay wax. ba wuy ma. di nelaw yeewoogul. tiit nga de. waaye boobu ba léegi xaw ma lu may lekk xaw ma lu may naan sama xel mi mu ngi. Eh, xam li ngay lekk ak li ngay naan di yelli day doore. démb démb moom su yeewoo nu muy mel day gën ah. démb léegi rey na ñëpp. rey sama ñoom nijaay ñëpp fëgg na leen la yow. xeexana. ma la yor yow kàddu la yow moom da lay bule. maa doon àtte. yow mi yaa mën a ah. soob yow. bu ko defee nii. nga ne la ngan. nii nii seere. nii yënguwul. ba may. fii fii ndigal yi nu mel nii waaye ma lay lay mais namu naa la. ah bàyyi bàyyi soo nekk bàyyi. dara moom lépp jàpp. lépp jàpp ay kuy. dajalee am tan. naaj bi eh papa eh doomu nday li mu ngi. lépp jàpp lépp lépp. may ma ndox. yow man yow. eh may ma ndox bay may ma ndox. sa waay naka mu. waay naas kay lépp jaam. ni rek ay ay foo ko nu mu demee nii bàyyi. nan la demee nii. bul damm bul damm baal ma day maanu nit day maanu koor dafa bokk ci maanu soo wooree da maanu damay dégg laa koor dafa ànd maanu nag laa oh moom ko fene nii romb nag man changé nga tax ah eh, fii amul an tons an sa tons tons wol ma wol ma yaakaar naa de yàlla. li bo. tey yàlla kaala bee ngi de. waaw yàlla yàlla fekkee ay ñu fekkee ko ay dër yu bari waay. mooy ñëw gaal. mais mag ji siyaar naa la <laughs> fay oh nooy nii nooy nii mais naka gaañ gaañ naka mu nag baay. waaw Baye bi. mais gëj a gisee. rakk ji nam naa la de. bon oh, maa la raw. bàyyi nga am jàmm. oui maa ngi sant bu baax. alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. mais nooy naka mu. waaye sant bu baax. lépp jàmm naka fële. waaye fële waaye foofu. Ah. Ah. Ah. ñu noonu nga fële ñu fa nekk ne. waaw ñi nekk ci biti gënul leen dëgg leer laa la wax. waaw léegi ba bàyyi nga ca yële. waaw ah, waay bàyyi bàyyi yooyu bàyyi yooyu. ati dama leen laajee. waaw ah, bàyyi yooyu bàyyi yooyu. am na bagage xam naa ah, yoon bi métti na ma ma ajal la ko ci kaw. dawal ma ko ci kii bi. wu ma kar bi nag daa am yu si nekk wu ma. teel ko ndànk rek sa waay teel ko nga demaale teel ko. xam naa ne tey teel ko nga demaale. teel nga dem. waaw jàppati nag saal bi daa diis de. muy ah, lijjantee bëri nag ñii. ah waaw ah, bàyyi sant bu baax a baax lépp jaam. alhamdulilah dama dóor. Ah, ñu ngi nii rek. oui naa tawféex. sant alhamdulilah alhamdulilah. ah oui. maa am tànn bu baax. waaw maa am tànn bu baax jaga ji fan yii. jaga di woon naa waaye sant naa bu baax kay. sant naa bu baax. yàlla. sant bu baax a baax. sant alhamdulilah. ak madame madame mu ngi fi mooy fi oh, ah déet nag dimbali ñu xewit dañoo wóor uh-huh. dañoo wóor xanaa wóoroo bàyyeekoo yi ba tey non sa waay sa waay man man nongo laxasaay laa sa waay man du ma wóor ah. bokkuma ci loolu sa uh-huh. waay man damay dem màjjal ba may ñëw si yoon bi dama doxee foofu laa jël ba si yoon bi ba fii dama ko màjjal te damay ñëw léegi gën dam joxe ndogu ah loolu baax na. voilà mais coo jiw sax maa lay jéem a déranger parce que lii àq la xaaral ma yëg ci kaw ceel sama mbóot. Ah. xam nga tuk sama jaamu gën a xam. waaw waaw waaw maa ci kaw. Ah. maa maa ngi néegu limon ah. waaw demal ah, dundu dundu. dundul fàcc. fàcc. fàcc. Eh. moom daal daa gëm dafa gëm. laxasaay yi moom da koo nib da koo ñàkk rek ni du ko bàyyi kii yow man xëy maam Serap Fall bu ko xalalul ma xam ne du kenn du beneen Baay Fall bu dugg àjjana nooy na nga woon. Baye Fall. lépp jàmm. mais maa ngi am tawfeex rek. waaw ñu ngi dañuy dalu rek. oui mais lépp tawfeex. non maa ngi tey la guddi moom seet. ma doon toog xaar ndaw. waay. parce que sa maam Cheikh a loolu. sa ñoom ay gan ñoom ñëpp ñu ngi ñëw doo toog nga xaar non loolu dëgg la nooree ni loolu dëgg la c'est que xam nga rek ak gars nu ma leen namee gis nii xam nga boobu ba léegi maa ngi fële sa waay baa ma dugg daara ya rek bàyyi waaw bay ba non daara ya gars yi dama leen yow kañ nga ñëw bay ba eh, umpaañ en jàmm eh, maa ngi nii rek umpaañ waay sant bu baax waay waay sa sa waay ñu bay ba yaa ngi ñëw waaw gëj a gisee yaa ngi jàmm bu baax mais xaaral ndoo ko wuu ma umpaañ man foog ma dem daara ja ba dem sa plat laa togg loolu ah? Oh. a passé. oh. verser la li nga toog nga xaar. non wuy ma xoolal yow xoolal amoon loo ma teg. am benn problème. yow maa ngi ñëw. dawal nga ñëwaat si. mais dundoo la ak yow. waaw moo leen. bay bay ginnaaw kenn mënul a téye kay. waaw waaw nañ ko dégg nag. nañ ko dégg. ah bëggee waay. waaye yaa ngi mën si kar ba tey. waaw xam nga ak gëj a fee yaa ngi gën a xam da ngay gëj a si kar. dëgg la dëgg la mais su ma ñëwee yow damay taaj. ñoom daañu ñoo war a def. ah dinañu ana saa. sëy sax ma dëgg la nii la. Baye Fall damay oyof.